alors ensuite nga boole ci ko dans mon parti ça fait deux ans deux ans minimum ñu ngi discuter si ndax ndax signature bi dañ ko falsifié dañ fa contrepied wala dara mais xam naa ne daal le ministre de l'éducation Burke Demba signé na trois mille et quelques arrêtés par signature électronique waaw loolu yëpp am ñu toll fii est-ce que man damay continuer ñu jëm fii di dem deux mille vingt neuf sans pour autant ñu régler problème yi premier problème qu'il faut régler ci laa taxaw lii def ma dab rek mooy il faut que la plainte d'abord que le PDS que le PDS ouvre une voie de recours xaw ma ban lay doon ci problème mu candidature Karim Wade bi nga xam ne dañ ko jaay te jaay ko ay magistrats te député yi am ci preuve te preuve yi. ki ko denc wala mu xam ci dara na fi jàllo la parce que wax na ko mais loolu may mun a doo fekk kuy sàcc sa kër nga téye ko ba pare yeew ko génne ko ne da ngay dem commission d'enquête maintenant la magistrature et Cheikh Ndiaye et je je m'adresse à lui magistrat de haut bu fekkee ne sa plainte bi defuloo ko woon rek pour freiner l'action de la commission d'enquête Mais il faut aussi que Ousmane Diagne, le ministre de la Justice et son son juridiction s'en prennent à cette affaire-là loolu moo tax ci assises yi nga jóge te dama ko laaj dama ci def benn participation dama bind wax ne ci délégation bi ñaar ñii dañ ci war a dem parce que dañuy xam problème bi ni mu demee tudd seen tur ne bu ñu demee seen déclaration nañu jël le monde des assises wax leen ne lu ñuy mënti régler ci assises yi te réglé wuñu le problème de l'argent des assises l'argent sur les assises la corruption dans la haute magistrature bu fekkee ne loolu réglé wuñu ko c'est pas la peine ñuy def ay assises